gundekari men vokib te Ousmane te gande di fayi lu gogdo mam fali wala mo get numéro 2 ak Maurice bu Palmarin Maurice mo lu won gannaaw borom Palmarin Mame Fally il a français defambir la diva Mo Gates numéro 2 arbitre sifflé na combat ba Maurice Mame Fally ndeysaan ne kon ka rimel fo kiin te Ousmane Diegane ne diva yino bog to sama xel dem ci Aliou Konté l'enfant séeréer de Marloj waaye dama jaadu ziar ma mbal ka maak teen o saafa no jem gando waaw waaw Malick Thior

लगातार फेवरे वाला भी टीवी जो वोटे फटिक लगातार फेवरे वाला भी टीवी जो वोटे फटिक जान जाए जगल बड़ी ऑटो अक्सर सामने फ्रांस पहले तरह आपको जो अमाचर या अमात्री से फेब्रुआरी में करीब के लाम मुझे लगा ये वो Avali am na avertissement. Boris am na avertissement. आरबीसीके वार्ड जखन कुन केली पण आता तीस ये समाम जोड़ हम हुआ ना काम बोझ हम फाली Nuggets numéro 2 ak Maurice Maurice moo féete à droite Mame Faly moo féete à gauche borom ngeen mu gauche acar bi suufee waat na Mame Faly ak Maurice bu Palmarin jël nañ gauche ñëwaat Maurice moo nu woon gannaaw wala moom mooy borom ngeen mu vert jàkkaarloo eh, andeer na kamu yéena na gondaaw kama baan defi amen jaloori ko ba bisi ginaaw caatu fisal la ak serigne jaay wala ñexe ko ko ci fer Yeah. aca Mame Faly moo gën numéro 2 la famille de famille Municipal Marin habertisma mori jelle habertisma mori sawa ñaar habertisma ma faale am ben mori ga jana danna parce que parce que jol newul bas ngel jol newul moni ma jana la jox victoire neena du arrière moni ma la face de la Côte d'Ivoire on dal be xaye बनबारो याल मका मरीज मनोर गनाओ मा फाली बंगला क्या कारो माफाली बरिस के amaat naa beneen avertissement muy trois arbitre jox na Mame Fally victoire arbitre jox na Mame Fally victoire de